Cheikh Mbacke Dione di maire commune bu waaw li fi xew tey man bi ma koy uti yaakaaruma woon ni mbégte bii dina ci am ndax bi ma xëyee tey ñëw ba jigéenu Pambal ba askanu Pambal gis matériel bi leen andil gis naa seen kanam benn mbégte boo xam ne gis naa ci sama kanamu samay kanamu yaay samay kanamu tante benn mbégte boo xam ne gëw ma woon ni politique dina mën a maye lii. ndax politique moo mën a tax tey ñu nekk maire politique moo mën a tax tey ñu dem sloveni ba ñëw jëlee leen fa benn matériel boo xam ne tey suñ ko doon jënd fii bi ñu ko xaymaa mu ngi tollu ci cent mille euros mu nekk soixante mille soixante cinq millions de francs CFA. tey ñoom ñu jël indil ko commune de Pambal ci cadre partenariat bi nga xam ne bi ma fa àggee vraiment dañ ma teeru tatagal ma euh, jël Pambal def ko seen xol ndax bi ma fa jógee matul sax dix jours hier le Albin ñëw Sénégal ak jet bu muy ñëw fii jet privé la jël jël jet privé def ci machine bi andil ko jigéenu Pambal comme tey euh, Slovène yi Slovène yëpp aw ma seen fay ndax tey mbégte bu ñu ànd fii ci Pambal euh, jéggi na dayo moo tax ñun li ñu fi tax a toog mooy gunge gis-gisu président de la république Macky gis-gis boobu mooy communes yi waratuñu xaar ci nguur gi ndax président de la république jox nañu benn jumtuwaay boo xam ne ñun mën nañoo dem sans nguur gi mooy acte 3 de la décentralisation ndax acte moo ñu may. ñu dem ci bitim réew tënk ko ay convention xool fa lan moo koy suñu njëriñu andil ko suñu askan saa ñu tàggu nguur kon tey ku la may loolu yaakaar naa ubbil na la bunt yi ngir nga mën a jëm sa kanam te su dul woon na euh, téq-téq yoo xam ne am nañ ko ci wàllu tali bi fi nekk am na yeneen projet yoo xam ne tey fii ci Pambal waroon na démarrer ndax tey ñu ngi ci benn projet boo xam ne benn projet wu 600 logements sociaux yoo xam ne dañ koy intégrer ak benn ferme agricole te loolu financement bi ñëw na depuis 4 mois mënuñu koo démarrer ndax tali baa ngi nii mënuñu fi def investissement bu mel noonu. Pambal mooy tali bi jóge Daaru Alpha ñëw Pambal dem ba ci Tivaouane tey ñu ngi nii amoon nañ benn par convention pour installer benn centrale euh, solaire de 40 mégawatts tey biñ ko bi ñu bi ñu duggee ci ci waxtaan gi ba tey. partenaire bi mu fi ñëwee gis tali bi nee na moom mënut a jël lu ma toll ci douze milliards di ko investir foo xam ne tey mën na am su tawee piste bi yàqu du mën a am accès foofu tey euh, daaw depuis daaw waroon nañ fi installé benn unité euh, benn yi nga xam ne gerte gi nga xam ne moom la ñuy bay ñu defar fii ci Pambal benn usine boo xam ne moom moo koy transformé kooku demoon nañ ba tënk kër yëpp ba defar projet bi ba pare mais bi ñu ñëwee techniciens yi xool investissement bu lourd boobu fi ñu ko nar a dugal ci tali boo xam ne raarant la ñoom du sécuriser seen i seen seen financement. kon tey gis am na mbir yu bari yoo xam ne ñoo ngi jóg dugg ci avion yi dem uti ko mais suñ demee ba ko fu ñuy mujjantalee mooy suñu ñëwee ba ci fii day am blocage ndax ci wàllu logement sociaux yooyu tey Pambal waroon nañ ko démarrer ça un an dañu mujj obligé ma jël sam benn xarit la maire de Gandiaye tey actuellement ñu ngi fay dama mujj a jël benn projet bi yóbbu ko fa ba ñu ngi fay démarrer logement yooyu te ñooñu gënuñu waa Pambal tey ñan ñu am possibilité pour émerger Pambal war na ko mën a def ba émerger ñun li ñu sant sasuñu ko ñun ñu ngi ciy dox mais am na loo xam ne mën naa ko am na loo xam ne nag état moo ko mën ñun li ñu mën mooy dem outil ñu ngi dem ñu ngi uti ñu ngi àndi mais am na ci loo xam ne nag soo ko andee ñu ne la kat yow kat lii nga andi nii mënuñu koo def fii ndax tali bi loolu mënatuma ci dara tey. Mm-hmm. waaw xam nga xam nga li jëm ci tali bi dañ ci daan waxtaan ñu naan waaw ñu ngi xool ñu ngi ut financement bi ci banque mondiale ak fenn feneen mais tey loolu nekkatul prétexte ndax man miy wax ak yow man maa jël avion dem ba itali jël fa benn partenaire bu tudd Gruppo Prandi tey bi ñu fa demee ñoom ñu ñëw ñu war a am liggéey yu ñu def ci Pambaat bi ñu ñëwee gis tali bi ñu ne ñoom mën nañoo jël financement bi jox ko état te financement bi taux bi ñu koy joxee état taux boobu moo gën a oyof sax bu banque mondiale ñoom bi ñu ñëwee wax yemuñu ci ay wax andi nañ ci seen i expert ñu def étude technique bi étude technique bi ñu def presque ak bi Ageroute def ñu ngi rawante ay 400 millions tax ci tali bi mu ngi toll ci 4 milliards et ñoom ñu def ab ñu def offre spontanée déposé ko au niveau de la l'Ageroute boobu ba tey bi ko déposé ñun ñu ngi toog di xaar ñoom ñu ngi toog di xaar ñu pour ñu jox leen ci accord wala déet mais jusqu'à présent ba tey déggaguñu benn réponse tey mënoon naa d'accord ñu ne amuñu xaalis ñu ngi uti pour financer tali bi mais tey man fexe naa ba outil financement boo xam ne ñëw na pour ñu financer avec avec un taux boo xam ne euh, moo gën a mucc ayib yeneen yi kon man jàpp naa ni la ma waroon def def naa ko la askan wi waroon def def na ko ñu ngi xaar ci nguur gi ngir mu jàppale ci loolu ngir ñu mën koo réaliser ni gën a gaawee. nañu matériel bu nga xamante ne daanu woon am si poste de santé mais fu ñuy continuer di dem ba bëgg a xeex wàllu wérgu yaram si jigéen gu wérul ak yaay ak doom dañoo gis ne ni matériel bu nga xamante ne mënuñu koo bañ a am si poste de santé parce que pro matériel bu nga xamante ne am na solo lool boo gisee jigéen. coono bu ñuy daj bu ñu leen laajee benn échographie wala nga am urgence bu nga xamante ne war nañu xam doom ji nu mu tolloo fu mu nekk ak nu mu positionné wu dafa ñu nekk ni matériel bu nga xamante ne c'est indispensable pour ñu am ko poste de santé donc parce que gis nañ jigéen bu nekk nu mu tuuti tuuti war naa def ñetti échographie si juróom-ñeenti weer donc dafa nekk lu nga xamante ne lu met pour ngay dem fii yëg oto tali bi baaxul ngay dem ba Tiwaawoon ngay egg foofu ku defal fa nekk fa ngay dem ba Kees di accord xaalis bu ngay génn pour nga mën a defoo échographie boobu si population bi fu ñu toll dafa xaw a métti donc moo tax ñi xam appareil bi ñëw na population soxla nañu ko te dinañ ko jëriñoo fu mu waree. donc si wàllu jafe gis nañ ni population bi ñu ngi couvrir ñaari fukk ak juróomi ñaari village si yooyu yëpp gis nañ lu tolloo juróom fukk juróom population yi si si nit ñi. ñu ngi dëkk lu ëpp juróomi kilomètres si poste de santé bi donc gis nañ ñoom xam nañu sori si poste de santé bi balaa ñu yore yu ñu amee urgence balaa ñu egg si poste bi def juróomi saret wala juróom ñetti kilomètres balaa nga egg si poste bi si saret donc dafa nekk jafe-jafe balaa nga egg si poste de santé nga ñëw yëg auto ambulance peut am nañu ambulance mais balaa nga yëg si tali bi bu nga xamante ne baaxul poussière bi rëng-rëng yi si malaat bu nga xamante dafa xaw a sonn dafa nekk jafe-jafe bu ñu amoon tali bu nga xamante ne goudronné wuñu macha allah fu ñu toll nii kenn dootu ñu waxati dara mooy Pambal woon bu ñu amoon goudron boobu tey jii nii rek macha allah dootu ñu waxati dara si wàllu problème d'accessibilité. salaamaaleykum salaamaaleykum euh, man maa tudd Ami mbay di euh, yore réseau des femmes commune bi. tey ñu indi leen benn échographie dafa nekk diggante. échographie dafay baax ci moom. Hmm. ban njëriñ ngeen jàpp dana leen ko amal. njëriñ li bari na lool ndax ñun biñ nekkee fii amuñu woon échographie hôpital baa ngi nii dispensaire euh, mu ngi fii mais amuñu échographie dañ daan jógee fii dem ba tiwaawoon maar day taal man mii sa am naa ci cas loolu yëpp man su ma nettalee sama kaasa sax di ngeen wax ne loolu man ëmb naa fi a war a wasin léegi si nag ma war a def césarienne mais toog naa presque fukki weer sama doom bi kiiwul après ma ñëwee fii docteur noonu da ngay dem defi échographie Tiwaawan dama fa yendu ba ngoon dama xëy fii suba ba jant bi soog Tiwaawan après ci lendemain bi laa ñëw ma sonn doom bi sonn ci la doom bi loro ci ëllëg si noonu ci laa mujjee defar ma ay keeg yooyu ci laa mujjee nekk di accoucher affaire mais bu fekkoon ne mu ngi fi kon loolu yépp du am xam nga léegi moo tax ñun dañ ko bëgg depuis boobu ba léegi dañ ko bëgg fu nekk lañ ko jooytu fu nekk lañ koy jooytu ba yàlla far mu indil ñu ko ñu bëgg ko lool nag wax dëgg bëgg nañ ko lool ndax nit bu la indilee loo bëgg di nga ko fonk ñun liñ ñu indil ñu dañ koo bëgg moo tax ñu fonk fonk nañ ko lool bépp jigéen du ko dégg góor ak jigéen sax ñëpp ku ko dégg ku ne da nga kii waaw waaw dox bi da ngay doge fii di xam nga tali bi baaxul da ngay karang-karang dugg oto dem ba Tivaouane loolu yëpp coono la nga nekk jigéenu wéru yow yàlla tey defal la lii loolu la santaat bu baax a baax ñi ko fi moom ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant meer bi moom it xele la mais xele bu am kii la daal xele bu loxoom setee mën a bokk ay ay mag yàlla nañ yàlla def daal ñun yàlla nañ yàlla jàppale li ñu mébét si fii ci Pambal yàlla na ko yàlla mottale ak jàmm jërë ngeen jëf yéen itam jërë ngeen jëf jigéen ñi ñëpp